Notre plus grand plaisir est de vous servir, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans votre émission Dîner ak Diar Diar, l'émission qui vous surveille, qui vous réveille et qui vous Billaay sa fokkataan boobu dama ko mos a xool. ñu bu baax a baax Dîner ak Diar Diar ñëwati na comme d'habitude ànd see kii di système benn bu rafet, série bu nice waaye série tir bu jongo waaye tir mu fàtte benn bon benn yoon kii di Serigne Abibou nee naa leen à chaque fois boo xee rek suñu xel yëpp dem si kii di Sidi Lamine macha allah moom sax laay commencé ne ko salaamaaleykum Serigne Abibou. aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. sëriñ Mamadou Sène. yu baax. yow xam nga yow dama lay namm lool di dajeeg yow. waaw waaw man mii da ngaa lool. <laughs> bàyyi yow. waaw c'est non da nga tàng de. merci beaucoup ba nga taalee clim bi jërëjëf. voilà loolu baax na si nag. Oh, am na solo lool. parce ah. tàngoor yu temps daa métti de. trop kay. di nuyu Soxna Mbène. séeréer mhm. bu nice. mais saa bi tey da nga leer macha allah. non si non yi nag dama nekk si beneen topp. top comme da nga am neppeel. non moom affaire yooyu. ah ok je voulais juste savoir. eh voilà. ah je voulais je voulais que da nga am neppeel ou pas. non non non dugguma si procès yooyu. Hmm. waaw léegi daal xam naa ne naa bàyyi ba si kanam daal. ana ana ana ana xale 2000 bi. Eh, non bàyyi naa yëpp. Ah, da ngaa bàyyi lépp. waa teg naa lépp si suuf. Hmm. parce que daal xool naa sama gauche droite daal. Uh-huh. affaire yi waaw xale 2000 de moom mooy loolu doxul nag. nga bàyyi xam sa bopp. Mhm. waaw yem si affaire bi. si ñaari. waaw moo gën. jërëjëf. waaw di nuyu ñëpp rek comme liñ koy defee chaque jour. Mhm. waaw del si nañ rek sunu émission bi di diine jaar-jaar. Eh, di nuyu ñëpp ñoo xam ne ñu ngi seetaan si àddina bi yëpp. Mhm. comme niñ ko daan defee rek lañ koy defee Mamadou seen di la laaj si question yi di la déglu bu baax. jërëjëf sëñ Abibou moo ngi noonu système benn. oui. you are fine. mu mm. hmm? hmm, mooy rek. seen. <laughs> jërëjëf waaw bàyyi nga nuyu naa damaa mel ni ku màndi daal. Oh. <laughs> daal xam naa mbir mi jaaxal dama daal. ndekki ñetti yoon ko def màndi. waaw yenn saa yi ñeenti yoon laa koy def mais tey dama ñëw def ko ñetti yoon xam naa loolu moo ma jàpp ma xaw a màndi nii di jeex jeex mais garaaw amul solo. fay la bu baax sëñ Habib maa ngi lay fay di yu mbokk internet yi ñuy bàyyi xel saa su nekk ah, ah, di amaati mbégte ak kontaante jàkkaarloo waat ak yéen ci seen plateau bi di diine ak jaar jaar kon ah. moo di seen ñu bàyyi la nga doxal ñu def te ñu jërëjëf balaa ñuy dem foofu daa daay dem si diine bi xam naa diine moom tey dina xaw a dina am lu dugal tuuti mais tamit jaar-jaar euh, bi tamit parce que am na yu bëri yoo xam ne jaar na fi lu su mel ni affaire Idrissa Gana Gueye xam ngeen ko depuis le 17 ba léegi bu mu amee match contre lii di Montpellier mu naroon sol lii di mooy boo xam ne Paris Saint-Germain te soo am di drapeau LGBT maanaam couleur arc-en-ciel yi comme ñun ko Sénégal yi xamee mu lànk na ba tëdd ba sa waañ ba tëdd ba sa naaj ba sax ne di ko sol looloo waral coow yëpp depuis lors tubaab yeeg ñëpp àddina bi yëpp jokk di sa ngaañ yi waaye tamit Sénégal yi bàyyi ñu ko benn yoon. Ah. parce que ñoo ko doon jàppale baax a baax a baax euh, donc sëñ Habib. loolu yëpp nga dégg coow yëpp. Hmm. bañ jàngat nga si njëkk am ak dànk yow sénégalais ak kii di sa gaane nekk sénégalais. waaw jàngat bi ma si yoon a def de bu am solo la. nga yëkkati micro bi tuuti. xam naa nag. dana indi ci beneen xëtu coow ak beneen wax. Mhm. parce que version yi dafa bari te majeure partie bi dañoo ànd. Mhm. te am na fu ñu mbëkkee poto làmp yi ak miir yi. mu bëgg ñu bàyyi waxel bu baax. man nag li may wax man la concerné. Mhm. mbirum LGBT kenn ku ne xam na ne dafa araam. loolu sa déjà réglé nañ ko ba pare. Mhm. islam it réglé na ko. ke ko bañ a def jullit la jullitam moo ko may. Mhm. mais dama ne président Macky Sall dafa génn sa tàng-tàng ba wax si tiwitim. Mhm. deuxièmement bi Aly Ngouille seelu ko. mais dama ne mbir mi contrat la bu lié. Eh, Euh, Paris ak Idrissa Gana Gueye est-ce que yër nañ si contrat bi ne ko saa yu équipe bi war a dugal xaalis wala ko jëlee sangam da nga war a participer mm-hmm. dama ne loolu bu fekkee am na si biir contrat bi mm-hmm. dama ne Idrissa Gana Gueye dafa war a sol maillot bi da ko war a porter. mais loolu amu ci. non pour information yi dama bëgg leeral rek ne la. yooyu amu si. amu si. Mhm. vérifié nga bu baax. bien sûr à chaque fois dafa am contrat boo xam ne moo moo lëre kii di sa Gana Gueye ak kii di Paris germain bokkul ak contrat boo xam ne moom mhm. mooy relais lii di sponsor yi ak lii di Paris germain mhm. maanaam dama la jox benn exemple boo xam ne peut-être mën na lii kii di sa gaane gi ak mhm. fois ça veut droit ma si jeex mu daal di génn sans nuyu lii di supporters yi comme ni koy defee à chaque fois loolu maanaam si contrat la bokk Idrissa Gana Gueye ak kii di waa Paris germain exemple la euh, mais bokkul dara sponsor ak kii di Idrissa Gana Gueye euh, sponsor n'est-ce pas dooy indi xaalis équipe bi. bien sûr kon Idrissa Gana Gueye dafa war a dugal loxoom si loo xam ne day indi xaalis ci biir équipe bi. moom laa wax ne bokk si contrat bi. bokkul si contrat bi. non déedéet non que loolu mënu mu ko gëm man parce que équipe bi xaalis a koy doxal Idrissa Gana Gueye xaalis moo ko fa bàyyi. mais lu ko question ñàkk gëm ak gëm. mais maanaam lu nekk teg si la ma wax la xam nga man dama tegee affaire u araam ak dagan. loolu moom c'est déjà c'est réglé. Mhm. mais li may wax mooy xaalis bi ko indi si équipe bi te moo ko sa bàyyi ba léegi. Mhm. ndax su amutoon bàyyi ko na fa. dama ne luy dugal xaalis si biir équipe bi da koo war a participer loolu l'islam da koo daganal léegi nag kantaa la muy def nag loola araam na wala araam loolu dafa araam ba pare. Mhm. mais yaa dem def sa contrat si signé fii si wasaare loo fa loo fi signé si contrat danga koy matal dégg nga de. léegi nag lañ lay propé euh, euh, proposé ndax sa diine may na la ko wala mayu la ko loola yow la concerné mm-hmm. mais li ñuy wax mooy règlement la ñuy wax. foofu lay waxee. foofu laay waxee man ti moo tax ma la règlement boobu. waaw Idrissa Gana Gueye lii ak dara. benn boo gisee coow loolu yëpp yow euh, ni ma de xam naa ne yow doo saan football mais coow li moom jarul ngay saan football pour si ak moom ci côté boobu. parce contrat ñu ne la contrat bi tey booy sol euh, li nga xamante ne nii moo di di lakos waa wasaare dañ ciy def li nga xamante ni moo di logo góor jigéen yi yaakaar naa ne boo xalaatee yow da ngay bañ reculer parce que yaw xam naa ne doo bu nekkee julit nga waxuma nag bu nekkoo doo julit wala bu nekkente ne yow da nga bëgg a dooleel ñooñu dégguloo ma non dégguloo ma loolu defal naa ko dégguloo ma non non parce que soo que li ma wax non non non parce que argumenté li mu commencé mooy sëñ Habib li mu wax amul c'est faux non loolu la wax defal naa rek xam nga wax man dama ne sëñ Habib seen dama ne man li ma wax ñëpp a ngi koy dégg. waaw ñëpp a ngi dama ne dafa araam. loolu wax naa ko kenn weerantu dafa araam. juge bi waru ko def. mais li ko lii ak contrat bi su fekkee moo si ne da ko war a def. mais lii wu ko ak contrat ma ñëw rek voilà léegi comme lii wu ko. te lii xaalis bi équipe moo ko xaalis équipe moo ko war a tax a jóg. xaalis itam équipe lay war liggéey. wax dëgg yàlla ndax su amul donc duñ mën a fay joueur bi. nañu wax dëgg rek xaaral rek ba tey waxuma sëñ Habib bu li mu wax amul non parce que da nga commencé ne sëñ li mu wax akkoon ànduma si ak moom ànduma ak am nga sa xalaatu bopp man am naa sama xalaatu bopp waaw am naa droit bañ a ànd ak ci sa xalaat yow tamit am nga droit bañ a ànd ak man ci sama xalaat mais man mais man su fekkee man diine moom fi toogloo yow jaar-jaar moo la fi indi diine su ma la waxee li xam ne la diine wax si réew donc dañ si war a duut sa baaraam yow seen bi ak ñuy déglu yëpp nga man ay mbiru du ay yëfu diine non enquête non ah, dafa nag non la non non yow yaa xamul li may wax suróol la déglu rek si julli dañ ne la dafa am foo xam ne fii mooy sart yi nga xam ne moom nga war a jaar ba dem si julli gi ba julli gi terminé loola mën nga ko indi si jamono gis nga mbir mi dañ koy méngale ak jamono diine mosul dem bàyyi jamono jamono mosul dem bàyyi diine ñoom ñaar il faut ñu lier jusqu'à au dëgg la mais mais mais sëñ Abibou tey bu fekkonte ne ni Gana Gueye dafay signé li nga xamante ni moo di contrat wam ñu ne ko boo signé contrat bi da ngay xel di sol maillot bi nga xamante ni logo góor jigéen ñi ci la nekk moom xëy na dina ko teel a bañ ci li nga xamante ni moo di contrat bi mais loolu bokkul ci contrat bi kon tey mënu ma ne ànduma mu wax parce que yow sa xam ma yor si gis-gisu man ba léegi sax déggoo ma wax tudd logo góor jigéen non non man dama wax li nekk si xaatim bi doxante ci contrat bi nga wax waaw loolu laa wax man waxuma sax lu ma góor war na ko war a mën a sol. Ah. loolu la diine wax xaw ma. Mhm. tey Gana Gueye jullit la oh. am na plein droit que ne man duma sol logo ah, mayo boo xamante ni dañ ci def logo góor jigéen. loolu am na ci droit. moo tax ma la lekkee loolu moom la concerné ku nekk danga boo ko defee di nga gis avantage ci sa coté mais doo def loo xamante ni boo ko defee. Mhm. yenn saa yi rëccu nga ci amee bu jaalee tamit mhm. loolu kenn du ko def. mu nekk loo xam ne lu am solo moo tax waaye sëñ bi moom li nga wax sànq ne diine laa wax nga wax foofu du diine de uh-huh. affaire de règlement moom amul amul diine amul ah, suuf boobu amul ay diine ah, ah, wax dëgg yàlla dafa teg ay ay ay suruutam boo mm-hmm. xamul suruut nag mooy mm-hmm. euh, contrat mm-hmm. loolu ay diine di teg si diggante nit ki ak moom ba fi ngay jaar nga def loo xam yóbbu na la si aljana wala nga def loo xam yóbbu na la safara. en tout cas moom moo gën a avancé parce que bu ñu demee ba maanaam euh, kii di président Macky Sall di si dugg euh, Macron la sax fu mu toll nii ñoom ñaar rek mais peut fu mu toll nii àddina bi yëpp ñu si commencé dugal seen baaraam. dama ne xoolal benn Salman masa Arabie Saoudi laa wax. buru Makka ñun du ñu teree man wax suñu xalaat. waxuma la keneen nag. non dëgg la. non c'est vrai mënuñoo tee wax li ñu xalaat ci réew mi. Mhm. seen i point lañ yor di ko défendre ñor suñu point di ko défendre. loolu moom d'accord naa si ak yow waa Màkk bu ñu gënee magu ndéem ñoo leen gëm magu tey ndax fii la El Hadj nekk fii la Sëñ Touba nekk eh, te ñoom fu mu toll nii moom amuñu loolu eh, waaye dafa am loo xam ne tamit leneen lu am solo ba léegi lay pour te terminer affaire affaire de Idrissa Gana Gueye bi dafa am benn mooy constitution eh, constitution boo xam ne moom fële sa France constitution ethnique bu kii di Gana Gueye dafa war baalo ak en plus sol lii di mooy lii di mooy boo xam ne am na couleur góor jigéen est-ce que doo d'accord nga si est-ce que jàpp nga ni di Idrissa Gana Gueye war na ko def. waa tooñ nga su amee su amee da war a baalu. nga yëkkati tuuti rek. Eh, tooñ su amee da nga war a baalu. loolu moom la engagé bu fekkee moom xool na ne moo tooñ na dem jégalu la su fekkente ne ñàkk faydam dal na ko ba mu teg ay affaire am si góor jigéen ne moo war a tooñ moo war a jégalu. boobaa léegi diinam des na. est-ce que jàpp na fi mu toll nii moom tamit war na jégalu. gisuma que ne war na jégalu parce que tooñu hmm. tey Gana Gueye joueur la bu mag koo xamante ne dañ ko ràññee ci réew mi. Mhm. te aussi teg tey bu buñ la tegalee contrat da ngay lire ba xam li nekk ci biir contrat bi. kon tey bu fekkoon ko ne dañ ko tegal contrat tegal ko ne de booy sol maillot da ngay sol góor jigéen. Mhm. bu boobaa bu ko deful dafa war a dem jégalu ji mais dañ ko tegal li nga xamante ni mooy de con kon mooy contrat tegaluñu ko si ne boo signé contrat bi da nga war a sol li nga xamante ni moo di maillot góor jigéen loolu amul ci contrat bi kon buñ ko defee loolu dañ ko def ci seen nafsu bakkan moom tamit na def def li nga xamante ni moo dal xelam ah. sénégalais yépp ñu ngi ci ginnaawam man su ma nekkoon moom ci sama xalaat sama gis-gisu bopp ah. nekkul ko moom moo tooñ nekkul ko moom moo war a jéggalu mm-hmm. parce que jàng na liir na contrat ba la ca nekk sol mayoo logo góor jigéen nekku ca woon ci contrat bi kon amul lenn loo xamante ni daf ko war a jéggalu wallaay bul jéggalu sax <laughs> bu la dàqee sa nga jël. ah, ah bu fayee ko 325 millions par par mois mën nga li def macha allah nit ñi ràññee nañu la. aussi te te te xam na xàcc boo gis warsaguwaay la bu ñu la bàyyee nga dem foo xamante ni di nga fa dàqee sa warsag rek mais bul def loo xamante ne nii mukk euh, mara naan bu la taxee naan. sa diine saa bu robinet ubbee rek da ngay rus. da de ah. te en plus fu mu toll nii moom. 32 ans nga am. Ah. ñu fay ko 325 millions par mois. Ah. nee naa la fi mu toll nii suñu ministres yi 3 millions la ñuy fay ko. bu ëpp bu bëree par mois. Ah. te am nañ 48 ministres. Idrissa Gana Gueye ministre bu nekk mën na la fay en plus desal ma si poosam. tey bu fekkee tey dafa signé si beneen équipe boobu xëy na du fa def li mu def si yeneen équipe bi. du fa yàgg yàgg boobu yow da nga def def nga ko ba pare. en plus noonu la ah, bu ñu duggee si affaire de fu mu toll nii moom euh, le déclin économique accompagné dina déclin de moral ou bien euh, maanaam loo xam ne fu mu toll nii su suñu mbokk politiciens yi. kenn xamatul fi teg suñu tànk. moo xam muy Ousmane Sonko Macky Sall Barthélémy Dias Euh, ak kii di Khalifa Sall ak foo mu mënti doon fu mu toll nii moom kenn xamatu ñoom ñëpp fu ñuy teg seen tànk parce que fu mu toll nii xam naa ni leen rek moo leen yitteel mm. mooy maanaam du xam ne mooy du fa seen poste mm. nawet baa ngi ñëw waxuñu si mm. waaye fu mu toll nii leen rek mooy ku nekk na ngay amee maanaam post bu nga toog wala danga ban position ngay nekk ku nekk di député Assemblée national daf mel ni ñoom ñëpp fàtt ne askan fu mu toll nii <laughs> waaye ci buñu demee ci biir ba fu mu toll nii ñu waroon jiite ah. ñooy toog di saagaanteeg wala di xasante si kii si si télévision yi ah. ñu su mel ni Ousmane Sonko koro gis nañ moo génn ay kàddu yu ñaaw bu mm. toogee naan diw di ay fenn ak fenn yooyu noonu mm. est-ce que ci kilifa mm. war na ko wax yow moom kese ñoom ñëpp ayam euh, sa laaj bi danga koo tontu si biir laaj <laughs> non c'est parce que gis nga mm-hmm. ñun ñu ngi bëgg a damm ñu ngi bëgg a taay wallaay gis nga ñii Ousmane Sonko Khalifa Sall Barthélémy Dias ak yeneen ba Déthié Fall xam nga ñoom lañ wax ne ñoo joué film bi. Mhm. ba ñu tas leen sa mm, direction général mhm. ba nga xam ne mooy jëm si wàllu élection yi. Mhm. léegi mais problème bi euh, Mamadou. duwul problème mu législatif duwul dépôt wala de mandataire wala boog nangam nangam gis nga lañu war a wax waxuñu ko. te wax nga say biiri wax mooy askan wi. ñoruñ leen buñ bëggee dégg-dégg mooy loolu askan wi ñoru leen te fi ñu jëm nii mooy seen yeew bi tas na te li ma lay wax nii xam naa si lu wóor te buñ demee ba si kanam da nga xam ne li ma la wax dëgg la que kenn si ñoom défendre tul sénégalais yi sa pêche euh, ni ñu ko tuddee sa yëfi bopp. sa yëfi bopp rek si nga nekk mbirum internet la moo xam ne mu nekk seen biir. ñu bëgg ko rek la ñoom mu neen kenn ku ne la nga say gagné sa bopp la mais du askan wi moo la tax a jóg parce que bu la askan yu taxoon a jóg. nawet baa ngi yi di ñëw ceeb baa ngi nii dund bi seer na foo xam ne ni kenn mënatu koo jand jigéen ñi mënatuñoo dem marché ah? baykat yi ñu ngi bëgg a dee ndox courant kenn mënatu ko fay si réew mi yooyu yëpp ñu ne ko fi ñukk di wax affaire ay parrain ak ay déposement ak ay liste baag dugg na fële wala karang-karang dama ne askan wi am leen fayda ak fulla bu kenn dem wate ji loolu maa ko déclaré. Eh, eh, eh, loolu loolu yëpp nag de. non c' est vrai. parce que ñi euh, Mamadou dañ ma dañoo tàngal sama xol. <laughs> non c' est vrai non dëgg la dañu tàngal sama xol. te ñu tàngalee sama xol nañu tàngalee. xalu askan bi yëpp mooy yeewi sama mag daf ma laan wax ne ma Habib mu ne mu ne ma fas wala romb xel neex ma ne mu ne ma ah mu ne ma ba mu jógee yàggul. dëgg wax bi de. yeewu dañ commencé ne bëreet yëf ya neex lool saf suukar saf jumbo am ay kaani pàccal ak ñoom li ma moom. comprendre léegi nag boobu xel neex na lool ñu dem ba mu yàgg léegi ñu xam ne lii mbirum réalité politique mu leen bëgg a dab la ñu door a xam nag ne lan mooy politique gis nga Ousmane Sonko barki alxuraan bi ma ko dégloo ba dégluwaat ko laa xam ne réalité politique mu ngi ko commencé xam. maanaam piki bi dugg na ko. piquet bi dugg na ko xam na ne ñi fi nekkoon duñ ay cuune. te fii wax ne la nañ rangale ñoom ñëpp du leen ban. sa dèjà moom demagul fenn muy ngi commencé au lâche. comprendre kon nag na askan yu am fulla ak fayda xool li ji def bu baax. koo fi wotel député boo fi wotel boppam la fi nekkal mais nekkul askan bi parce que la preuve mooy lii. dëgg di Sall di njuuj njaaj ak Barthélémy Dias ak Ousmane Sonko moom sax nekk fan mu nga Ziguinchor déjà ne yëguma ko woon bi ma ko yëgee donc dama oo Barthélémy di ko wax ne ko amuloo diw da nga war a génne diw wala nangam nangam ba ñu pàtte juróom-ñaari liste euh, candidat yi pourquoi mais ni ñoom mos ñu jàng politique wala ko xam ah kon dama wax ne ñi ñuy bëgg a jiite si ay tuune lañu kon nañ leen bëree na leen seet ñeneen Sénégal nag na nattoon na ko ba amagul ku koy génne si pax mi. Mhm. mais xëy nañ làmb bu ñu làmbee xëy nañ mos a daj. xaa ñu wut ku mel ni yow rek. c'est vrai man fu leen nii gars yi yi dañuy ah, mën a tane. waaw ma tëjee sa ma toj réew mi. yow xam naa ne ko voté sëñ Habib. sëñ Habib naa ko voté kay parce que courage ci jëmale sa kanam moom mu dël damay xalaat bu dem ba ci biir. def ni ñëpp di def moom tamit def moom def njëriñu poosam daal. Mhm. waaw parce que parce que parce que politiciens mhm. yenn saa yi ñëpp bu ñu toogee ni sëñ Habib waxee la ñuy waxee. Mhm. ñëpp dañuy naan su ma yoree. ñi fi nekk maa leen tane. Ah. su ma joxee ñi fi nekk maa leen gën a mën. te bu ñu ko joxee. Ah. doxalinu ña nga xam ne ñoo fi nekkoon. Ah. nañ leen doxalee noonu la ñuy xel di doxalee. mu doy waar waaw muy di doy dama koy rocci nekk nii comme que ki ma a soutenir si wasaare donc moo ma sànni xalab ni xeer yi sànni ba léegi nag gis naa ne dafa wa a taxasee benn boor wax ak loo wax mu ne gongol lu sëñ bi wax mu ne non c'est faux parce que sëñ bi dafa da ngay amul solo léegi yéen ñaari la loolu question la ñu man man man sëñ Abibou bu fekkoon dama am fu may far ci sa côté laay far. mais non non non mais dama émission bi ba léegi da nga toj émission bi. yaa ko rajaxe <laughs> waaw. non bu fekkoon dama am fu may far ci côté seen laay far xaw ma ci sa côté laay far. ah c'est vrai voilà <laughs> effectivement. loolu mooy dëgg. mais ma far ci ci côté ah. seen mais xam nga rek yenn saay suñu abi bu da xaw a. Hmm. génn tuuti ci ci ci li nga xamante ne nii ah, moom moom moom la moom la nit ñi di xaar ci yow daal. Ah, maanaam tey yow suñu abi bu xam nga politiciens yi bu baax yow yaa ngi seetaan politiciens yi. Uh-huh. ni politiciens yi di waxee tey noonu nga waxee man loolu. tey bu suñu abi nekkoon candidat duma ko votel naa la votel hmm, dëgg la mais damay xalaat votel la nga dem ba ci yàgg nga def li ñuy def ñoom tamit di hmm. damm di dugal sa poos ba askan bi fii la xar yi jaar ak nag yi fi la jaar parce que loolu lañ fiy gis lañ tàmm ci ñoom loolu lañ tàmm ci li nga xamante ne ñoo di politicien conseil ba may jox la wala boog bu ma ko defee bon xarab ma def ko <laughs> <laughs> en tout cas mu doon loo xam ne. Ah, en tout cas mu doon loo xam ne lu am solo la parce que fu mu toll nii euh, waxoon naa ko sànq le décret économique accompagné d'un décret euh, moral hmm. parce que fu mu toll nii moom Sénégal kenn xamatul kii kan mooy kan. Hmm. Euh, bu ñu yaakaaree Sonko moo baax ndekk Sonko moo gën a yées ñëpp. bu ñu moo baax ndekk président Macky hmm. ñëpp. en tout cas Sénégal kenn xamul fu mu toll nii. parce que bu ñu nee bay fàttali nii di population bi xamul ñoom fu ñu àgg nii tey jii Sonko bu nee toog naan maay leader wala Macky Sall toog ñii di askan ñoo ngi teg foofu ñu teg mm. te askan fu mu toll waxoon naa ko sànq ñoo ngi dem si nawet mm. fàtt nañu sax instant nii quoi Kër Massar à chaque fois nawet bu ñu sonn mm. waa Dakar waa à chaque bu ñëwee ñoom tamit béykat yi nga xam ne amaguñ jiw nag man maa ngi te war na maa am jiw wu ma bàyyi si tool wax dëgg jiw yi dañuy xaar ba yàlla ji taw ñu doon séddale jiw man ngaa xooli jiw bi tànn ko dem fekk yàlla ji taw nga ko ji tey mm-hmm. lay baax en tout cas war ngeen ñu dimbali ngeen may ñu jàmm bu baax a baax yéen homme politique yi nag bi euh, ci xiif beeg aussi nga xamante ni tàngaay bi dafa dugg courant bi dekkee ci xuy kamaj de ah. demaguñu ah. euh, jàppale nit ñi da bàyyi li nga xamante ni loolu damm di féetale seen jaytu ni ñuy ah. jàppale nañu may jàmm rek nañu waa kay nañu may jàmm te ñu may ñu loo xamante ni daal nañ am suñu liberté bopp bàyyi courant bi di dox ci tàngaay bi ñu jàppale askan bi ci lekk beeg naan wi euh, sëñ Abibu li mu wax aussi ñu jox béykat yi si li nga xamante ni moo di dund bi waa Kër Massar aussi ak ñeneen ñeneen ñu nga xamante ni bu bu yàlla si xiinee wala ñu ne nawet dugg si ne sax yaakaar naa ne seen fit dootul toog ndax euh, bu ñu gisee mbir mi xiin dañuy tiit tiitaay boo xamante ni ñoom ñu ngi xalaat fan la ñuy toog fan lañ seen njaboot yi toog wala fan la ñuy toggee pour jox seen njaboot yi ndax seen kër yi yëpp ay am ndox loolu aussi dañ ciy bàyyi xel Macky Sall dinañ génn nañ génn na 43 milliards dafa lànk ma wax la rek xaaral ma ñëw rek dafa lànk rek pour maanaam mm-hmm. ne da koy dimbale ñi nga xam ne mooy borom kër yi ñu ne jaarale ko si bourse familiale bi dama ne président bu fekkee foofu nga ko teg dina ñaaw lool mm-hmm. parce que am na koo xam ne si bu si familiale bi mu ngi si moo tane ki si nekkut loolu nag président jar na lool nga dugal say mbir ay nit ñu dem def enquête loolu c'est très important ndax ne nañu kenn ku ne dana am quatre-vingt mille te veille tabaski lañ ko séddale am na koo xam ne lam yor fuuf moo ëpp doole fuuf ki nekkul ci biir bourse bi. dëgg moom mën na boppam te ki nekkul ci biir bourse bi binduñu ko sa mënul boppam te mbirim bourse mi fa par parloo lañ sa defee bañ koy dugal bañ koy tànn. Mm-hmm. yaa ma neex si sama partisan nga sama nit nga yow bokk ak man danga may xeex moo tax du la ci dugal. ma foog ne nag bourse ba familiale bu ñu koy tànn dañuy xool ñi amul doole ñu dugal leen si dimbali leen waaye fekk ko am doole ba ne guuj nga ne ko dama la siy dugal dama ne du dëgg président yebalal ay nit ñu def enquête ci mbirum bourse familiale bi li may wax xam naa ko ndax maa nga dëkk sa àll ba kon loolu laa doon wax de. mu doon loo xam ne am solo bu ñu paree si politiciens yi nañu jàll rapide rapidement rek si société bi comme ni koy waxee à chaque euh, parce que tey bu ñu euh, jii nii Sénégal ñu suñu problème fu mu toll nii moom problème majeur. bu bu bu weesoo walla politique yi. wàllu sexe la. sexe parce que <laughs> waaw. sëñ bi waaw. journal yëpp journal boo ëbbit su wàngoon. léegi hmm. gis ñaari couple yoo xam ne ñoo ngi toog. Hmm. damay sëy ak yow. Hmm. sëy maa yow maa bañ. ku góor gi bañ bañ wala ku jigéen gi bañ. waaw dem taal kër gorom. wala nga taal ko moom wala nga jam ko moom. lu waral loolu yëpp fu mu toll nii. waaw euh, diine de dafa ne. ñaari way dencante mu jëkkër ak jabar ku si soxla sa morom. Hmm? Mhm. da ko war a jox. boo amul envie nag. maa ngi ñëw envie mu ngi tegu si euh, du jamonoy koor du jamono bu ndaw si gisee régal mhm. du jamono feebar dégg nga de. Mhm. voilà yooyu yëpp boo ko tënkee da yóbbu si comme li ngay wax amula envie mais bu euh, bu fekkee génn nga loolu léegi jabar ji bu soxlaa jëkkër ji. jëkkër ji da ko war a jox jëkkër ji bu soxlaa jabar ji jabar da ko war a jox. léegi jabar jëkkër ji soxla na jabar ji jabar ji ne ko maa bañ duma la jox sama bopp yonent bi ne ba ba muy del si war di ko jox jabar jëkkër ji hmm? malaaka yi rëbb nañ ko nit ñi rëbb nañ ko jinn yi rëbb nañ ko lépp lu yàlla bind rëbb na ko teg seen merom ca yàlla kon ñaari way dencante lii mooy trace bi ci lislaam wax mu jub ko ci léegi nag xaw ma nag ndax ba nga koy soxla dafa feebar wala bëgg dafa nekk ci ngànt ak yooyu ISRA yooyu lislaam d'accord na ne bu sa tolloo bu boobaa bu la ko laajee bañal encore ki yore régal ko kenn du seeg moom dafa xaraam moom carrément bokk la ku feebar. am ñu koy maa ñëw. <laughs> am na ñu koy def am na seen yoon nekku si. non genre xale seen yoon nekku si. Euh, moo tax gis nga sida bi ñuy wax nii. Hmm. attention de. ñaari benn docteur mu ni ma day bàyyi ko foofu de. sida. waaw waaw ndaw su gis régal ngay seey ak moom. comment ça. day day am sida def day wa day def sida. nga révélation de. c'est vrai ah oui c'est vrai man toujours révélation ndax man il est temps si temps lay dox. yaa ngi dégg baax ne ma la. Ah, léegi nag loolu yëpp bu paase eh, li ma la si wax si lislaam noonu la ko tracé. la sa des nag ñoom ñaar bu fekkente ne kenn ku ne manut donc jarul kenn ku ne di laaj sa morom. mais lal bi moom bu wér amee xiif amul regg am. dañ ko war a joxante ba mu baax. <laughs> loolu la sax wax. c'est tout mais Sénégal pour yow lan seen problème ak lal. man dama yaakaar ne man ci sama xalaat bopp sama gis-gis sama yaakaar ne su si bëri ci seen parents yi lay jóge. parents waaw. yàlla nga mën a tooñ parents la. non non parce tey bu fekkente ne man seen yow bugguma la sama yaay jël ma forcé ma la. non fekkee bëggoo xale wala bëggoo aada <laughs> bëgg nga ma jël exemple aada moom may jox meew meew mu tàng. jël sa aar comme ça <laughs> ah, ma jël jël ko sama doom rek bu fekkee ne jël sa aar bàyyi jël ko sama doom rek sa doom nga ah, bëgg sëy waaw moo garaaw exemple waaw <laughs> waa seen yow <laughs> waaye dama dama dama man mën a maa jaxase ak aada aada bëggu aada kay garaaw dama tey bu fekkonte ne man bëgguma xalil mhm. man sama yow nga jël ma sama parent jël ma tey forcé ma xalil man tey mënumaa fexe fexe fexe ba tëdd ak xalil parce que du ma ko àttan du ma àttan dem di tëdd xale wala lu ma ko bëgg sama xol moo ma ko dul may yenn ñu si bëri seen parents yi ñoo leen di dugal si mariage forcé mm-hmm. bu ko defee du ñu mën a sëy ak seen jëkkër yi wala balaa ñoo sëy ak seen jëkkër yi dinañ ci daj lu nekk seen jëkkër yi daj ci lu nekk bu boobaa bu si njaboot euh, juddoo tamit coono lay indil seen i borom. mais est-ce que dem tamit dem bay taal say kër goro. wala dem di dem dem bay jël ay paax di jam say sa sa jabar wala sa sa jëkkër. jaru ko mais mais tamit est-ce que biñ koy def ànd nga ak sa bopp bien sûr ba leen di wax nit bu fekkente ne nii. dañ la forcer te ba nga ba nga koy laaj nga ànd ak sa sago. mu sa fekkente ne nit dañ la laaj sa bopp nga bañ ñu forcer la. xëy na nit ki mën na la forcer def la lu la neexul mer boobu nga mer bu fekkente ne da nga mer mën nga def loo xamante ni. balaa nga ko balaa ngaa balaa ngaa rëccu li nga def. da nga ba pare soo gaa rëccu li nga kon comprendre ça veut dire dama lay dama lay wax nii maanaam yow ku góor ki moo doon laaj ku jigéen ki ku jigéen ki bañ mhm. ku góor ki dem taal kër ku jigéen ki loolu laa lay expliqué. kooku dafa rek kon ñi koy def dañoo rek <laughs> ah gisuma ci leneen. Ah, man daal man sëy moom seen. waaw taal kër de. taal kër moom xanaa euh, bu fekkee ñaar yooyu dañ leen teel mhm. kenn waru ko see def. Mhm. taal kër goro. waaw kenn waru ko see def wax dëgg yàlla ndax mbir mi duwul loo euh, xam ne dëgg si nga ko teg ndax lii danga nga teg si sunna ak farata. Mhm. ngeen dem bi si wàllu lal bi mu lànk jarul dem taali ay këri goro wala boog yàq sa oto wala yàq say matériel. peut-être fu mu tolloon rek. su ko defee rek léegi l'islam day rëdd ne la ndax mën nga continuer si lii wala mënoo ko soo ko mënul arrêté mm-hmm. te arrêté ba sax lislaam ne ne mooy la gën. ah nga wala nga wuti feneen rek. waaw mooy maa ngi ñëw foofu laa jëm ak yow kañ ah. parce que bu faatu nekku rek mbéy na ngi fi. Mm-hmm. c'est vrai non non bul bul non ma non c'est vrai non déedéet waaw mais déedéet xam nga ñun bu ñuy expliquer bu ñuy euh, jox misaal dañuy joxe misaal si li gën a jege. pour nit ki mën a comprendre. parce que élève bi boo koy jox leçon da nga koy jox lu niveau bu mu tolloot ñun foofu la ñuy xoolee. Mhm, léegi Fatou nekk fi benn ngi fi Fatou bañ na kenn maa takk benn. waaye tax waxoo mbenn nekk fi Fatou ngi. maa ngi ñëw rek ba léegi Fatou ngi fi bu mbenn bañee ma takk Fatou. Ah, ah. bu ma takkee Fatou li ma mel doon bañal ma am ko si Fatou. ah defe naa ne sax euh, si ñoom ñaar ñii ak ñu mel ni ñoom mooy gën parce que day yéwén mbir mi xol la parce que xol bi bu nangul xol bee war a njëkk a nangu moo tax buy takk jabar dañu bëgg nga dem ut goro mais bul ut jabar xam nga li loolu gone nga <laughs> dama bëgg nga ngay ngay ngay xalaat. moo tax may toog Mamadou Sène moo tax may toog sa utal goro léegi ba am nga soxna. man maa ngi si yoon bi de. léegi nag utal goro mais bul ut soxna. nu ma utee góor te amaguma soxna. léegi ka ngay uti jabar ka ngay takk doomam. kooka ngay xool ñu xoolal la ko ndax am na diine sell na yiw na borom kër bu yaatu la ñu yaatu lañ wala boog famille bu xat lañ wala bu fàtte bu yaatu. Habib waxu yaatu ngay wax yow amatul non c'est vrai. maa ngi ñëw li ma lay wax nii seen. Habib Habib non tey woon ma d'accord yow bu yow dëtt émission bi ndax nii. xam naa ne après maa dañ siy débat fii ak cent ans du si d' accord. waaw waaye li ma lay conseillé daal mooy booy ut soxna. utal goro mais bul ut soxna. dëgg ma foofu laa la wax ne ah. conseil fekk nii. fekk fekk fekk fekk yaay joo xamante ne nii. dafa baax mel ni comme xaru yar. Hmm. ñëw fekk doom ji mel nii man fu nekk muy dugg di génn. mel ni wax si abi bi. xar mu euh, tóon dogul bi. ah alxuraan de dafa gajji gajji ah, la nga sa gajjee lay seqiwaat. Hmm, du xale yi tey jii de maa ngi ñëw maa ngi ñëw gajji la nga sa gajjee lay seqiwaat mosulaa fekk rat boo xam ne gajji nga ko ba pare ngeer ñëw sax fa. man de gisaguma ko ku ko gis nag na ma wax. ay wax la c'est vrai parce que yéen xale ngeen. xam nga yeneen di ngi toll yi jëm si kanam dama leen di yee ndax man yeetee ma fi indi si sëñ Abibu li nga wax noonu waaw tey d'accord nañu ci yow ci benn côté cent pour cent daggal de xaaral rek d'accord nañu ci yow ci benn côté hmm. côté bi ñu d'accord ak yow mooy hmm. côté yéen seen génération Ah. Mm. noonu ngeen doon xoole jabar ah. mais côté ñun suñu génération mm. tey boo xoolee noonu jabar mm. di nga di nga di nga di nga di nga di nga di nga maanaam di nga tas sa yaakaar daal ah. parce que da ngay dem da ngay dégg ñu si bëri seen doom def ba pare seen yaay taxaw ne jëloo ma ci dara mm-hmm. tey bu fekkoon que ni maa nekk sa place lii de mosuma koo def kon xam nga ne doom jooju jël yaay est-ce que moom est-ce que moom mel mel na nu euh, baax lu gën a baax ni doom ji mel banaan ko jëloo ma si man waaw waaw ak lëm ko wax ne ko jëloo si ma si man lan la ay am na ay yaay yu baax yoo xamante ni sëñ Habib ñoo fi ah. nekk ay positif la wala ay négatif la ay xool nga ci ñoom boo dem takk seeni jom mm. ëllëg ak si biir duñ ko rëcc parce que seen doom duñ mel kon dafa fekk ne ñu rëcc woon ci démb ja waaye tey doo rëcc a ah, xoole ak ñun duñ benn yéen si góor ngeen seet ñun fu mu toll nii xale looloo tax nag li leen dal dal leen ah, comme xoolul leen ñu nekkoon ci démb ja xool leen fañ jëlee jabar uh-huh. ndax ngeen di xool ci tey loolu tax leen daal daal ñun fu mu toll yi na xale bi mool na xale bi loolu tax ñu taal seen kër yi jërëjëf <laughs> sëñ bi ni nuyoo ah, yow yaa ngi doon doon takk 2002 daa xam xoolatoo démb non xool naa démb li ma xool démb mhm. mooy maw ma ma recul xëy na bu ñu dawalee 3 mois sport bi xaw a dóof ma takk ma dugg yow yaa nga génn si 2002 yëpp ay na dama dugg <laughs> waaw yow <laughs> dégguloo ma xanaa seen yow dama bëgg ngay dégg samay wax man dégguloo ma de dama ne mënuma woon maa la waxoon fii damay takk troisième. Mhm. manatuma bàyyi naa ko. parce que poste bi amul xaalis. léegi nag damay dem ba si kanam 3 mois 4 mois xam naa am na somb ma yaakaar muy ñëw bu ne daraas ma ne daraas. waaw boo ne boobu jeex. Mhm. naka ngay continuer. <laughs> tullu wàll nga loolu fa muy jeexee ak la say topp. yow xamoo ko man xamoo ko subhaana wa taala la yegg. <laughs> ok ñu tàmbalee ko tàmbalee émission bi. te tàggatoo. jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. nettal moom doo yi. <laughs> ah dëgg mooy loolu del xool xool leen bu leen xool yaay yi xool leen doom yi sëy daal bëgg naa ca mu immature daal sëy na neex sa boroom kër di la feccal ngeen di fecc di ambiance mu neex waaye sëy bu xamante ni ay ay dóor rek ay xase yooyu yëpp da cee am baax na merci rek. merci si conseil yi benn bonne nuit. yow moom takkoo dóoroo fay woo àtte woo xeexoo conseil wu ma <laughs> jërëjëf jërëjëf mbokk seen texanal bi Wassare TV lii leen indiloon tey gis nañ ko sëñ Habib moo si mission takk donc moo ngi noonu <laughs> du su may wax say kàddu la benn yow ama ko eh, jërëjëf man moom maak ba si kanam damay toog si mbaam bi xool machine ni muy demee. da nga yàgg a de de. <laughs> jërëjëf dañu jox dig daje prochainement incha allah merci beaucoup.